yar ci doomam yar boo xam ne bu ma sëkk lay doon mu fexe ba soppante am ci biir famille bi képp koo ci xam ne kii yaa ëpp doole sa moroom nga di ko aar di ko dimbali nga yëg sa wajur coono yëpp am ci yow xàq yim am ci yow bu dee yaay ji nam la ëmbe woon nga dis ganna mu dëkke ko ay weer ba ngay ganee àdduna mu sonn ci lool xaw a dee coono bi jeexul mu dëkk ci di la bor nga di ko def sobe boo tawatee dootu nelaw lu mu am attan na ko xañ boppam yéene la ko xàq jooju diine lay xamal ni mu toll nga xam ne kon bokk na ci ngor bokk na ci wëllëre sa wajur nga def ko teg ko foo xam ne tegula fa sax sa bopp léegi bu fekkente ne dañoo bëgg famille ci boppam ni ñuy soppantee ni ñuy dimbalantee ni ñuy yërmanantee kenn ku ci nekk li nga ameel sa morom ci xaq nga jàpp ko nga xam ne day daal di nekk génn buum gu leen takk ba mu dëgër nga xam ne dara mënu leen a teqale famille bi ci boppam beneen famille ba mu dendal te mu takk boppam moom it ci warugar yooyu ba sàmm ko ba nga xam ne lu dëgër na boo ko moom it ak bii famille ba quartier bi mag nga xam ne quartier bi yëpp dañuy daal di nekk mel ne benn jëmm yéeneente jàmm kenn ku ci nekk di fexeel sa moroom jàmm di ko wutal lu baax boo ko xamalee lu koy lor nga taxaw ca attan koo dimbali ba lor sa bopp quartier boobu ci boppam quartier bi mu dengal noonu ba dëkk bi mag dëkk bi ba réew mi mat nga xam ne réew mépp dañuy dal di nekk benn kenn ku nekk yëpp li nga bokk ak sa moroom ak li la war ci moom ak ni nga ko war a sàmm ni nga war a taxawee ci mbiram ñu dem ba famille ci boppam famille bi tax nga xam ne soppante dañ dootu ci amati kilifteef dootu ci amati dara dootu ci amati lu leen di boole wala luy fàttali moroom ëllëg xale bi bu amee fukki at ak juróom-ñett moo moom boppam mu leer ko ne ku nekk xam na ne xelam mësagul ndax loi yi ñu tëral sax boo bokk na ci nit ku amul fanweeri at yoon di ko yërëm kon xam nañ ne xelama matagul léegi nag waxuma fanweeri at waaye fukki at ak juróom ñett xale bi moomu boppam ba lu ko sob def bu duggee ci lu koy lor bu ci dugg du ko xam kenn sañu ko ne bu ci dugg waxtu wuy tooñ kenn sañu la téye loxoom ne ko bul tooñ ndax ëllëg si biir la ciy dal moo moom boppam mel na ko neex bu jógee ana la na koy yar ndey du ko yar baay du ko yar xarit du ko yar mbokk du ko yar ku ko yar mbedd mi ak film yi ak télévision yi ak rajo yi buñ ko yaree gannaaw moom xelam ma tegul li neex ba kanam rek moom lay dal di topp ndax loolu mooy gën a yomb fi moom mooy neex ci moom bu ëllëgee yooyu yépp di ay musiba yu sotti ci kawam te du am ku mu ko jooy ndax nit li gën a am solo ci moom mooy téere yi dañu wax ne yar ci waxtu ndaw mooy sax jikko yi ngay saxal ci xale bi bu muy xale bu tuuti dafa mel ne gas gi nga gas ci aw xeer nga xam ne du far mukk jikko ji nga xam nag bi ngay mag lañ la ko jéem a jox day mel ne kuy bind ci kaw ndox mi nga xam ne fu sa loxo weesu rek mu dellu maasaloo bu ngeen gisee nahju qadaa xaaj bu ngeen ko jàngee sëñ bi naan hada wa inni namazu ijaba ba'd al muridina zawil inab qad talabu nazman hawaka adduba liyata addubu wa zaka wajaba in kullu man bi ghayrihi rama tiba fa innahu yuhramu fawzan wa ittifa wa huwa fi daarayni khayru tanzi wa khayru mu'taz bihi zu izzi li annahu al munawwiru al janani kama yubaidu an niiraan kama yuqarribu al jinaani wa yujibu al madha lada al jiraani kama yubaidu an niiraani fa qumtu musliman lil jawaab wa artadi ridwa ma eh, sawaabi mu xam le ne maa ngi jóg tey di wuyu lenn ci mur gi nga xam ne sàkku nañ ci man ma binda leen téere boo xam ne daf leen di xamal ay teggin ma dal di jóg nag buur ànd ak gaawantu ngir xam gi ma xam ne teggin kat képp ku sàkku lenn loo xam ne ah, sàkku woo ko teggin doo sa jëriñu xam la ne teggin mooy tax nit ki jege àjjana mooy tax mu sori safara xam le ni itam teggin mooy tax nga yeeyoo aw tagg ci ñi nga dëkkal ak ci ñi dëkkal ak ci suñu xam le ni itam teggin ci boppam mooy sori nit ki safar ñu xam ne moom bu nu seetee ne teggin day ànd nit ki ba ba muy dee ndax nit du mucc mukk du dem mukk ba doyloo boppam ba aaju wutul ku koy yar damaa waxoon ci tàmbali bi ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo doon cheikhu taalim cheikhu taalim mooy kan mooy ki nga xam ne xamal la rek li nga réere ci diine mooy wàllam du ko weesu cheikhu tërbiye nag bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo daan tërbiye tërbiye bi mu daan tërbiye nga xam ne moo waral xadis yëpp waxtu wu nit defee lu koy lor mu xamal ko na mu koy lor xamal ko ne lii lu mu war a wattandiku la xamal ko lor ji mu koy lor ëllëg ak xeetu mbugal bi mu koy indil nga xam ne bu ko bu gisee nit koo xam ne xam na ne kii nangam doo nga manqué ci diineem bu ko laajee ne lu gën ci jaamu yàlla loola la koy wax ndax bu ko defee mu dal di fonk loola topp ko waxtu woo xamee ne gis na loo xam ne lii nit ki def na ko te muy lu baax mu gën ko caa farluloo gën ko caa xiir gën ko caa poussé loolu moo doonoon cheikhu tarbiya bi nga xam ne moom la doonoon cheikhu tarbiya bi nga xam ne it ni mu waxee ne ni ngeen di mel bu ngeen toogee fi man bu ngeen ko mënoon a dangeen da ngeen di jàlloog malaayika yi di nuyoo ñoom di saafonte ñoom ba di waxtaan ak ñoom loolu itam meloo boppam ci boppam ak yeneen xeeti jaamu yàlla nga xam ne kenn ku nekk daf laa beral la gën ci yow muy tur yàlla woo xam ne bii daf la koy def muy julli guddi goo xam ne dafa xam ne moo gën ci yow te yar boobu nga xam ne tax na waman yaxshu an dicri rahmani nuqallid lahu cheytanan fa huwa lahu qarinun wa innahum la yasudunahum an sabil wa yaxsibuna annahum muhtaduna xata ida jaana qaalu yaa layti baadi wa baynaka bu'da al-mashriqayni fa bisal qarinu nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam xam le na kon ci tarqiyaam ni alquran indee aaya ji wane ne képp koo xam ne wan nga gannaaw fàttaliku yàlla te fàttaliku yàlla mooy lan nga saxal yàlla ci sa xol nga wattandiku xuus xuus ci àdduna xuus goo xam ne dana la fàtteloo àllaaxira dana la fàtteloo sa ëllëg ndax mooy li nga xam ne mooy alak nit ñi nit nga xam ne nag amul benn yar kenn jàngalu ko dara kenn nañu ko dara ni ma ko waxoon nga xam ne bu jógee rek lu gis rek loola séréw li ko loola yóbbu ko buy roy day roy ki mu naw te ki mu naw mooy ki nga xam ne eh, gis na ne ci àdduna kooko ta koo ko tane wala gëm na lool bu ñu seetee ne daanaka yi ñu ci ëpp daanaka sax xale adduna bépp Amérique moo joxe ton bi maanaam moom la ñoom la ñuy roy américain la ñuy roy ndax américain yi nga xam ne suñ borom jox na leen kàttanu adduna ba ñu yilif te duñu seet ne dafa am wet gu leen yàlla jox am wet gu mu leen xañ nii tam am wet gu munu xañ am wet gu munu jox bu nu seetee xam ne wet gu munu jox moo gën wet ga mu leen jox te wet ga leen xañ wet ga mu leen xañ mooy la am solo moo di xam yàlla ak yonent bi ñu jublu adduna jàng ko mokkal ko raw ci suñu borom itam far ko nit ñi wal nit ñëpp wëlbati ku ne ni leen jàkk xool leen bët yoo xam ne dootuñu xef ba lépp lu fa jógee defe ne ñoom moo gën lu jóge feneen lu fa jógee ñu defe ne moo gën lu gën feneen bi nga xam ne nag mag ñi nga xam ne ñoom fekki wuñu dara ci jamono ji umpale nañ jamono ji lool yàqu-yàqu yu bare yi xamuñu ci dara xale yi nga xam ne ci lañu juddoo nga xam ne xamuñu leneen fekke wuñu jamono ji nga xam ne moo tane woon lu baax amoon na nga xam ne ji lañu juddu yaru ci ji xamuñu itam yàqu-yàqu jamono ji defe nañ ne li ñu nekk mooy li gën li nekk mooy li normal mooy li baax ñi nga xam ne nag xam nañu jamono ji ni mu yàqoo ak yi ci yàqe ak fa mu jóge ak ni muy nit ki muy yàq wan yoon ngay jaar ak yi tax ñooñu rek ñoo war a amee saafara xale yi ñooñu nag warugar yi leen war buñ ko sàgganee ñëpp yàqu te bu ëllëgee daañu am yeddeel daañu amit euh, mbugal ndax nee naa ki nga xam ne moo njëkk am responsabilité moo di wajur yi ndax wajur wi gannaaw ëllëg dañ koy laaj li mu sàmmoon bu fekkee ne benn dafa amul jot ndax wut àdduna bu ëllëgee du amu ay bu fekkee ne itam dafa jàngul woon jamonoom jàngul woon diineem ba xamul na muy yare doom xamul la mu koy wax ak na muy waxtaanee moom ak yam koy sant moo tooñ boppam bu fekkente ne itam dafa am complexe ci kanamu xale yi ba nga xam ne buñ ko nee seen jamono bokkul ak sunu jamono seen jamono passé na wala da ngeen a dox ngeen seen ndaw ba mu jeex bu leen ñu yàqal ñu dal di gëm loolu teg ci seen ngëm bu ëllëgee daañu xam ne ñoo tooñ seen bopp léegi kon li war waajur yi nañu taxaw ci jéem a yar seeni doom ndax yar sa doom yarub lislaam xamal ko li baax ak li bon xamal ko li yàq xamal ko nam koy wattandikoo xamal ko jaamu yàlla am na avantage ndax benn bu ëllëgee du ngeen layoo mu yey la te boo fi jógee itam mu nekk fi dana la ñaanal te boo tëree itam dana taxaw di dimbali di la féete fam la war a féete fekkente nag bàyyi nga ko mu mel na seytaane bëgg mu mel ni bu ëllëgee yow ci sa bopp da am ci moom lu la naqari ndax yaa ngi ko tàmbalee ci ñun sunu aada yi nga xam ne mu lislaam mënu ko jox ak mag ñi fi nekkoon dafa wuute lool ak aada yi ñu nuy roy ndax xale boo xam ne mu ngi toll ci fukki at ak juróom baayam wax mu ne ko déedéet du loolu loolu dëgg ñun xamuñu ko woon ñun li ñu xamoon bu sa waajur waxee même bu juumoon amal teggin lim la sant def ko lim la wax déglu ko lim la tere bàyyi ko bu ëllëgee dana la jëriñ njëriñ loo xam ne bi ngay xaleel xamagoo ko woon ndax bi ngay xaleel yiñ lay tere mu di la naqal yépp boo ko seetee ci xale bu tuuti buñ ko dee jox garab gu weex wala ñu di ko pikiir moom ci boppam day jàpp ne dañ koy lor rek dañ koy def lu metti du mën a xam njëriñ li nga xam ne moo nekk ci métit woowu loolu la xaleel di mel ba ba muy ñor bu ñoree itam kat xamagul lépp war na am ku koy jàjjanti nit ku nekk boo bëggee jub war nga am koo rus war nga am koo ragal war nga am ku lay digal am ku lay tere da waxtu woo xamee ni ñàkk ko rek seytaane mooy dal di remplacer kooku di la di la tere di la jaarale fa nga xam ne fa nga bëgg fa la bëgg nga jaar fa ndax doomu aadama bi la toog mukk te amul benn influence bu dal ci xolam mënu la ñàkk benn ay xaritam dugal ko ci lu ñu bëgg wala ay waajuram dugal ko ci lañu ñu bëgg wala mbedd mi jox ko aw meloom wala nit not ko nit ne moom not ko jaarale ko yoon woo xam ne bu ëllëgee daf cay alku wala daf cay torox ni nga xam ne nag noonu mooy euh, importance yar te léegi kenn itte wootu ko bu ëllëgee nga xam ne waajur yi daañoo am responsabilité bu rëy rëy rëy ndax li leen waroon moo di jàng lislaam te jàng bu wéy mukk nit mën naa jàng ci rajo yi nit mën naa jàng ci kaset yi nit mën naa jàng ci waxtaan yi nit mën naa jàng ci conférence yi nit mën naa jàng ci ay leçon yoo xam ne daf koy commandé nit mën naa jàng fu ne te jàng moom faral lañu koy wax ak noo mën a jàngi rek ba xam am njàng ngoog te njàng mi gën a jëriñ mooy njàng bu nga xam ne dañ koy fas fas ko yéenee jëfe loolu moo tax buñ seetee nag ne euh, yàqu jamono daanaka àgg na foo xam ne nit ñi dañoo rëcc nit ñi dañoo rëcc ndax ñi not nit ñi gën leen a naw gën leen a yéem ñoo amee yàq gi di ko yàq ñi néew doole kon li leen mën a musal du lenn lu dul xam ne li ñu am a gën te mooy lislaam ñu woy ci jàng lislaam ba xam ko xam lim la digal xam lim la tere nga wattandiku lim la tere jëfandikoo lim la digal moo di mucc ah, alxuraan ab yar rekk ci nekk ba mat ndax nit ki ba mu muy faatu yar du wees ci moom ndax nit gannaaw day juum nit dana naax nit dana fàtte nit it dana jort ne lii nii la fekk du noonu waaye ki fi jaaroon moom ba xam ko xam la muy indi ci lor bu la ko digalee da ngay dal di war a xam ne lii yow sa xam-xama ci agul waaye mooy li li nga xam ne nag ñi ngi tàmbali dina ko wàll mooy ku nekk ak sa avis doo imposer kenn kat sa gis-gis ndax da ngaa am sa gis-gis kenn amee gis-gis nga xam ne liberté d'expression mu am kenn ku nekk sa xalaat sañ nga koo wax kon nit ki mënatu laa wax benn xalaat lu mu la gën gën xalaat mu la imposé nga gëm ko benn ci yàqu-yàqu yaa ngoog ba ci xale bu tuuti bi sax day daal di xam daal di gëm ne am na xalaat boppam boo xam ne moom la war a wéyee keneen waru koo imposé xalaatam te moom bu seetee ne xamagul dara amagul benn expérience ci àdduna buñ ko nee libre nga mooy alku nga torax nga dugal nañu ci yoonu musiba dugal nañ ci yoonu musiba ndax xamuloo dara nit ku jóg bëgg a dem ci dëkk te dëkk bi mu jëm xamul fu mu féete te àll bi ay gaynde nekk ci ay jaan ay këll ay kàmb nekk ci amuloo làmp bu lay leeral amuloo kenn ku lay wommat amuloo ku la naan jaaral fii na ngay mujje lu leer rek la bi nga xamee ne eh, eh, doomu aadama bi bu nekk am na ñaari seytaan yoo xam ne ñoo lëkkoog moom te du ñu tàggoog moom mukk du ñu tàggoog moom waxtoo woo xamee ne bii turu yàlla wala déglu waar tàggoo naag moom seytaane si daal di song dugal ko ci loo xam ne lii mooy la koy alal ëllëg bon li nu war moo di nanu xam suñu bopp bu nu xamee nag li nu amee moo gën lu keneen amee ndax lislaam la nu amee ak bu yar am itam cislaay cislaay moo di sëriñ bi nga xam ne dafa àgg ci yàlla àgg ci yàlla am ngërëmal yàlla mën a xettali mën a fekk ku texee di mu texeel ko mën a fekk ku ñu bind turam ci texee di mu far ko bind lu ko ci texe kooku amul benn warugar bu gën a rëy dellu ci kooku waaye nag ki nga xam ne mooy sëriñ bi dafa xam ne doomu aadama dañoo am yoon yu ñu war a jaar benn moom ci boppam am ngërëmam moom mooy lépp waaye nag sañ-sañ bi ko yàlla joxoon ak may gi lépp teewul mu xam ne doomu aadama yi kat dañu leen a war a leen jaarale yoon woo xam ne mooy yoon wi nga xam ne mooy yoonu sharia moo tax li mu bind lépp mu bind ko luy tawxiid bind na ko wax it ne war na ci doomu aadama yi yépp jullit ñëpp ñu njëkk a xamlu tawxid mooy fi nga xam ne fa la ñu war a teg yàlla boo xam ne tawxid dëgg dëgg am tawxid ju wér kenn du la mën a fëkk ndax kenn du la wax lu bees mukk mukk te lu ñu la wax itam yow nga xam tawxid bu dul lu jub da nga koy daal di xam boo si jógee fiq mooy ni ngay jaamoo yàlla tasawuf nag mooy li nga xam ne mooy ubbi sa xol dugal ci xam yàlla dugal ci bëgg yàlla dugal ci leerug yàlla nit ki nga xam ne nag moo àgg ci xam yàlla mooy fi weesoo yàqule waaye fi àgg bu set weesuwul yàqule ñu ne nag kon doomu aadama yi gannaaw annaasu halka illa al aalimuuna wal aalimuuna halka illa al aamiluun wal aamiluun halka illa al muxlisuun wal muxlisuun ala xatarin azimin doomu aadama yëpp ñu ngi jaar ci yoonu alko ni mu waxee ne inna la fi xusrin lu dul ñi xam seen diine waaye ñi xam seen diine yëpp ñoom ñu ngi jaar ci yoonu alku lu dul ñi jëfee la ñu xam ñi jëfee la ñu ñi xam ba noppi jëfee la ñu xam ñëpp ñu ngi jaar ci yoonu alku lu dul ña sellal seen jëf ñi sellal seen jëf it ñu ngi si guddi gu biir setagul xamuñu ñoom it ci lu ñu jëm nga xam ne kon nit ki dafa am war-war yoo xam ne xaw ma ko xaw ma ko woon du tax mu mucc ci ba mu ko deful mënuma ko woon it na joxe lay mbir wane ne mënu ko diwa ma ko yàqaloo it diw moomee ba mu la koy yàqal yàlla wàcce la loo xam ne mën na tax ba boo ko toppee kenn du la yàqal mooy li nga gëm bi nga xam ne dem noo nekk Amérique xam ngeen ne yi rawatina ñu ñuul ñi daf ci bari ñuy tuub am benn américain bu ñëw laaj ma fukk fekk nag ba mu njëkkee ñëw bindul laaj yi dafa doon wax rek ma ne ko tontu ci ëllëg sa bi mu ñëwee nag bi mu daata ni mu téléphone ne fukki laaj ak benn laay indi ba mu dikkee fukki laa des benn yi indi ko rek moom katolik la woon nee na dañ leen jàngal ci seen diine ne leen Eesa nee na moom mooy bunt bi nga xam ne mooy caabi àjjana kenn du mën a dem àjjana mukk te jaaruloo ci moom kon mooy diine ji wér diineen mooy diine ji wér te amul yeneen diine ji nit mën a jëfandikoo ba dem àjjana mu wane ne ñu ne jàngal nañ leen it ne leen ku ñu dugalul ci néegu ndox bi maanaam ku ñu sangul ci seen sibxa boobu ñuy def doo mucc mukk ci seytaane te doo mucc ëllëg te kon doo dem àjjana fokk nga dem néeg bi nga xam ne dañ koo teg ci kaw montagne bi def ca ndox ba mu fees ñu dugal la ca nga génn te it amatul kenn koo xam ne kii mën nga jege yàlla walla nga xam yàlla te jaari woo ci moom ndax moom benn bunt la bu yàlla ubbi ci ko suuf si te dootu am amatul beneen bunt mu ne kon te ñun ñu jàng leen ni leen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam lislaam Muhammad a ko sos boobaak léegi junni ak ak ñeenti téeméer la waaye ci xalaatu boppam rek la ko sos du diine joo xam ne jóge na ci yàlla mu ne nag ba tey jóge gi mu jóge kon moom ci diine nasaraan dugg ci lislaam am na ay moroomam yoo xam ne ña nga ca diine jooje ba tey dafa bëgg di discuter ñoom te laaj bi nga ko laaj mu xam na mu koy tontoor te ñoom dañuy mel ne dañ koy kondaane ci wan ko ne diine ji nga dugg du diine waaye mënuloo mucc te dellu si woo ci diine ji nga xam ne Isa mi ko fi indi loolu la wax ne ko itam Isa mooy doom yàlla ne leen ne ko itam kenn koo xam ne kii judduwaatoo ñaari yoon fakk sa baay fakk sa ndey fàtte leen doo mën a dem ci yàlla laaj yu bari la bind moom bindoon na ko waaye man a ma këyit wër waaw ndax américains yi dafa bari ñuy tuub lool mu ne nag léegi kon nan la moom nan lay mën a justifier l'islamam ci kanam ñi nga xam ne dañ ko wax ne ko saa nee na kenn du mucc te jaaroo ci moom mooy benn bunt bi ma ne ko waaw Isa wax na dëgg de Isa wax na dëgg ndax diine ji aadama mu njëkk a indi diine lislaam la amee woon yonent bi fi ñëw ci lislaam nga nekk l'islam diine ja l'islam la tudd continuité am maanaam ku ñëw rek mu ngi mel ne rek ay chef d'état yoo xam ne dañu yilif mu réew waaye ki dem moom nekkatu fi ay luwaam ak ki bëgg-bëggam sax ak ki fi teew rek Isa ba muy wax loolu looloo amoon ndax mi ngi ko doon wax ña nga xam ne ci ñoom lañ ko yónni moom waaye ba nga xamee ne diine ja changé nañ ko am dugal ci yu ci bokkul ba suñu borom xam ne war nañoo indi beneen diine ba Mouhamed ñëw mission jeex na léegi ku fi ñëwaat diggante boobu Mouhamed la Isa ci yow mu ne ko nag léegi bu fekkonte ne léegi da ngeen ne buñ ne la woon léegi bul reconnaître kat Bill Clinton reconnaître Bush rek wala ci Sénégal ku ne woon bul reconnaître Abdou Diouf reconnaître Senghor rek ndax loolu dana sotti mu ne loolu mën a am mu ne ko noonu la demee ku sa mission jeex keneen ka ñëw place ba nga toogoon lay toog waaye nag Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom li tax muy diine ji mujj ni ma waxe woon sànq ne rek moom li ñu bind jëlee ko ci moom amul benn yonent boo xam ne bind nañ ko jëlee ko ca ca yow bu dee l'ancien testament bible bi scientifique yi jël relevé nañ ci erreur yu bari yu jeex mu leer leen ne kon lépp jógewul ca yàlla kon am na lu ci doomu aadama dolli te doomu aadama moom mooy juum mooy ñàkk xam waaye yàlla moom lu mu wax du dañ kon bu ngeen gisee ne dem ngeen ba xam ne lii amul te mu nekk ci biibal bi da ngeen di xam ne kon nit ñi soppi nañu diine ji yàq nañu téere ba ba tax beneen téere war a ñëw buñ ci jógee ñëw ci Nouveau Testament bu ñëwee ci évangile maanaam leen jël linjiil yi am dafa bare lu ëpp fukki linjiil am na waaye ñeent rekk ci imposé ñoo ci mujj jamono saxal leen ba ñu ne fi waaye ñoom itam gis nañ ñoom ci seeni contradiction mu leer nu ne ndax ñooñu ko doon bind gisuñu Iisaa dañoo toog ba mu yàgg lool ñu ñëw ci àdduna bind ko te ku gënoon a jege muy Bernabe moom Linjiil bi mu bind xamle na ci Muhammad xamle na ci ne yonent dina ñëw boo xam ne xamle na ne Iisaa mooy borom mbaam mi kooka mooy borom gëléem gi te kooka mooy kii xetlee Iisaa moo waroon mbaam mi Muhammad sallallahu xam ngeen arab la arab yi ñoo daan war gëléem yi moom mu war na gëléem ba tàyyi moo doon war gëléem moo moo am xatwa euh, gëléemam yooyu mu amoon daan ko war joxe na tegtal yu leer ne dana ñëw sama ab yonent sama gannaaw koo xam ne mooy mujj yonent yi kon léegi néegu ndox boobu l'islam ku tuub da ngay sangu ku tuub da ngay sangu ndax li nga jógee muy kéefar sobe la inamal mushrikuuna najasun te loola itam sax dafa aju woon ca ña bokk ak Isa jamono rek nga xam ne Isa la ñu yónni woon ci ñoom waaye ñii nga xam ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam la ñu yónni ci ñoom buñ ko reconnaître amuñu diine te bu ñu deewee lakk loolu mooy li xam ne moom la lislaam jàngale te mooy li am itam mu daal di nag nga nangu ne mu ne waaw ba tey kon buñ ne ma Muhammad sallallahu alayhi wa moom moo sos lislaam boobaa léegi junni ak ñeenti téeméer la lan laa leen di tontu ma ne ko nga ne leen kon bu fekkente Muhammad a sos lislaam nga ne Isa moo sos christianisme Isa ñetti at la woote ci àdduna dund na ba am fanweeri at ñu soog koy yónni mu woote ñetti at jóge fi Isa am na wet yoo xam ne doomu aadama yi mënu ko ñu ko cee roy ndax mësula sëy te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàngale ne xam nga ne sëy ñaari way dencante ay xaq am na ci ñoom kenn ku nekk lu war ci sa morom sa diggante lu war ci yow sa diggante ak sa morom lu mu la amee rek loo ko amee ak na ngay def ba xaq du am seen diggante ci ëllëg bis ba nga xamee ku seen koo xamoon rek daw nay sa ndey nay sa bàyyi nay si soxna nay ko mu doon Isa atte wu ko yim atte bariwul kon Muhammad sallallahu ma wasallam diine jim indi dafa atte dund nit ba mu juddoo ba bi muy génne àdduna atte na jaayab jënd atte na sëy atte fasit atte miraas atte lekk sax ñu sàkk na na jullit war a lekke na ngay naane ba dara des ndax lu tax dafay dafa dikk ci mujjug jamono nga xam ne doomu aadama yi li leen di fab bi dafa bari nga xam ne doomu aadama yi ittewoo nañu itte yu bari yoo xam ne seenu dund ko indi ndax fii diin fii fii adduna àgg moo ko waral ñaar ni ma ko faral di waxee naan leen mu ngi mel ni rek Euh, état bi enseignement enseignement primaire enseignement secondaire ba ci enseignement supérieur mooy l'islam enseignement secondaire mooy christianisme bu ci nekk fa euh, judaïsme mooy enseignement primaire fa doomu aadama yi toll woon la toll woon ak seen xel ak seen civilisation ak seen dégg ñu indi leen diine ju ca yem léegi bi nga xam ne nag diine doomu aadama àgg na ci maturité nga xam ne lu ñu bind léegi këyit am na machine ak yépp mujj na am nga xam ne lu yonent bi sallallahu alayhi wa amut ñu ci mën a yokk wala luñ ci mën a wàññi alquran na ko jibril wàcce woon ci yonent bi la mel ba léegi te amul benn téere bu am junni at boo xam ne mel nga noonu amul ci àdduna alquran téere bu wér mooy bi ci gën a yàgg mooy bi ci mag mooy bi ci gën a wér itam ne ko nag loolu mooy tax dootuñu yónneeti yonent ndax soxlaatuñu yónne yonent léegi benn benn jaam bu mu doon boo xam ne bii dugguloo ci lislaam bu yemul amee dootoo am lay ndax lay wi nga mënoon am moo doon woote bi jot si wuma wala damaa juddu ci diggante yonent boo xam ne dafa dem lam jàngale woon ñu fàtte ko walbati ko ba ku ko dégg du tax nga gëm ndax ay caaxaana ca dugg ba bari ca ba tax du tax kenn gëm te beneen yonent ñëwagul kooku mën naa am lay wala ki nga xam dafa nekk ci réew yoo xam ne léegi l'islam àggu fa waaye léegi ba adduna daj fu fi nekk rek lislaam àgg na fa alxuraan àgg na fa boo boo bëggee jënd kaamil da ngay dugg ci bitim rek jënd kaamil beneen téere boo bëgg jënd noonu ba ci Amérique bi ba ca euh, Australie foo mën a dem ci àdduna kon léegi amatul kenn ku am lay te noonu nga gis Esa waxoon ci jamono ma taxaw mu di ko wax Muhammad itam jamono bi mu ñëwee ba ba àdduna tukkee tax ko man yëpp tax yi xayral islaam yi diinan fa la jox bala mi alxuraan dafa ne képp ku sàkku benn diine bu dul diine l'islam yàlla du ko te inna diina indala lislaamu diine ji yàlla nangu mooy lislaam rek kon baax bu nit mën a baax yërmande joo mën a am tabe goo mën a am njëriñ lu bari loo mën a am di jëriñ nit ñi dëgg la mën nga bañ a lakk ndax suñu borom du lakk ku tabe du lakk ku bari kuy jëriñ nit ñi njëriñ lu bari waaye nag doo dem àjjana ndax àjjana ku jaamul yàlla doo ci dugg te jaamu yàlla ci lislaam ci farataak sunna ji nga xam ne mooy lislaam rek la ko suñu borom di nangoo dootu ko nangu ci